ndeysaan mu jël kalandoo allahu akbar jaar péage xor xor xor xor te moom la xaar bu ñëwee bu tuddee ba noppi ñun imaam jërëjëf boo fa amee mille cinq cent daw na ba rëq allahu akbar imaam métti na Sénégal mënu fee weesu ndeysaan nettaloo naal suma conférence ma conférence ba noppi ñu gunge ma ba ca oto ba fayal ma cent franc nga xam ne ñoom maanaam yow joxuñu la sax cent franc après def lañ koy dox ne ko wàcce ko bërëb sàngam <laughs> ne ko wàcc ko. te ndeysaan xam naa waxtaan wu neex nga leen defal nag. ah ba <laughs> góor a góor laaj de. ndax nee na ma tam sàngam la. préparé naa ko. bind naa ko lu nu dugg naa ci. ndeysaan. conférence ba nag boo fu ñëwoon. da nga naan ah, oustaz amina fii cinq cent wala huit cent mille. ndax bari ay nit. kenn mësul gis lool. ndeysaan. tant bi nag. da dugg ba sa bët yem. ndeysaan. fa ngay toog ca tant ba. ak fi nit ñi di toog. sa reewaay gi kenn mënu la ko wax. ndeysaan. kon gars yi mën nañu organiser de. waaw mais dëkk bi ci imaam noonu la. te it Hadj Ibrahima Sakho daan wax ne. da ngeen a xàmmeewut rek. waaye ko xam ne ci loxoom nga mujj. ngay mujj. ndeysaan xam ne suñu Cheikh. ci ay loxoom ngay mujj. ndeysaan.